بكيتك نيل وزار ذل وحزن يا أخي قريش ما يظننا أنا الأمر ذو الوثن spécial rentrée des classes ah ubbite école bi c'est une société Cipex, une société industrielle papeterie express Bou Sénégal am équipe dynamique te qualifiée à 100 à jeunes sénégalais d'une machine industrielle de la haute technologie di proposer la superbe gamme de cahiers Espoir en couverture plastique et en couverture cartonnée la Cipex lance le cahier Teranga en couverture plastique et en couverture cartonnée avec une promotion exceptionnelle la CIPEX lance cette année Kayeteranga avec promotion Boumouchaï. le paquet de 200 pages avec les 5 pièces à 1400 francs L'Imustam am Sénégal le paquet de 100 pages avec 10 pièces à 1400 francs mustam am Sénégal stock limité une promotion disponible en couverture plastique 60 grammes et 80 grammes suñuy boutique agréée librairie papeterie Mohamed Bourguiba LPM Sandaga LPM Koloba LPM Kaulak LPM Tilen LPM Kermassar Hello Partenaires GBIS Mour GBIS Kaulak LPM Bount. centre commercial Al Maktoum la CIPEX et la LPM toujours au service du social les commerçants et les parents d'élèves nous vous proposons des produits de qualité supérieure à petit prix avec le cahier Teranga la qualité saute aux yeux des prix exceptionnels en carton sont prévus pour vous les commerçants et grossistes pour tout renseigner contactez-nous au 77 633 21 24 ou le 77 571 07 02 dañuy avec ak mairie yi dañuy ak municipalité yi ak ministère ak ñi nga bonne volonté yi bëgg a ci jang pour xalé yi ngeen ñew ñu jox leen ay ci ay yu yomb ngeen dimbali yi ndax éducation moy السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عليكم السلام. جنال سيدنا ما في. نيلن دي نيوت دي لن زيارة دي كتب تي سمن نيو سنگ يوت دي دي سري محمد المصطفى دي سنو رك دي سنو جربات تك كتي سنو رك sunu jarbaat di Abdul Hamid si waye ci sunu Jam bu tedd bi di serigne babakar Cissé and ko serigne mam Umar ndjay sunu jarbaat mam ahmedin Sall sunu rak hadji Hasan si ak sunu president comité d'organisation hadji mam Ousmane sam ak sunu coordinateur sunu lepp di sunu mag Alxaaji Abdul Aziz Mbay ak mbooleem ñi nga xam ni rawatina Sëriñ Abdul Aziz Guèye mi nga xam ni tey moo fi toogal jamaatu Nour As-Sunni waaye Alxaaji Mbay Caam professeur ak mbooleem kilifa yi nga xam ni ñoom lañu séqal jataay bokk yi ci turu xalifa bi Sëriñ Babacar Mouhamadul Mansour ak ay rakkam Seydil Xaaji Malick Maodo Serigne Babacar Abdoul Aziz ñu déclaré ni gàmm gi insha allahu taala bu ren bii di ñëw le 27 septembre Serigne bi ñaan yal nañ ci yàlla yóbbu ak sago ñii ñëw ñëw ci jàmm delluwaat ci jàmm fekk ñi fi nekk ci jàmm fa ñuy jóge it yal nañ fa bàyyi jàmm sëriñ Moustapha wax na ko léegi sëriñ bi dafa waxoon ni bu ñu ñëwee ba ñuy wax dara sunu xel yépp nañ ko joyal ci suñu bokki bopp yi nga xam ni ñoom ñoom ñoo bokk lépp muy marocain yi nga xam ni fan yii ñu ngi ci jafe-jafe ci xat-xat rawatina libyen yi waaye am na ci biir réew mi ñoo xam ne ñu ngi ci ay xat-xat yu metti ci yu mel noonu ci ay accident ak yu mel deme ni ki noonu sëriñ bi di ñaan yàlla natt yooyu yàlla na ko fi yàlla yemale yàlla na yàlla indi jàmm ci àdduna bi rawatina ci sous région bi waaye rawatina ci réew mii ñu nekk di leen jaal li nu bokk muy kóllëre muy soppe muy lépp di sëriñ Saliou Touré ku ko xam xam ni nit ku baax dem na mm. nit ku amul moroom dem na sëriñ bi wax ni mu ngi koy jàll bokki jullit yépp ndax sëriñ Saalix turi nekkul woon rek représentant wu sëriñ Touba fii ci Thiès déedéet waaye sëriñ Saalix Touré puso woon ci biir diine ji puso la woon ci biir communauté yi lu ñu ñaan yàlla yàlla ko yàlla teeroo ak yërmandeem yu kawe sëriñ bi wax ni mi ngi fàttali nit ñi ni dëkk bii ngeen jëm si fasiyene ko fe fek mom ak ay njabotam dëkk bu sel la Seydil Hadj malik mom waye tay ku tuddu Tiwaawan fe xel dem ci El Hadj Malick sa mam serigne babakar nak am lu mu waxon ci xàqu barab bi nga xamni ne Seydil Hadj malik fi la tëdd mu def ci bind bu gàtt ni taaddabu fi dariixi shaykh zuwar ان التادب للتعظيم مختار fa in daxaltum li zawrin laazimu adaban fa fi l asiati xirmaan wa tuxtaaru maa xurmatu cheikhi illa xurmatu lmaliki almaabuudi faxtirimu fi fi tarki daaaru ndax bi adabin tasilu lil jinaani waaye bi adabin tasilu lil rahmaani sa maam Seydi Xaaj Maalik nee na ci jaamu yàlla ngay yaakaari dugg aljana hmm. waaye ci yar ak teggin ngay gise yàlla te gis yàlla moo dàq aljanna ndax lilladina ahsanu xusna ahsanul xusna wa ziyaada muy ñaan yéen ñi nga xam ne yéen a ngi ñëw ngeen bàyyi xel fi ngeen jëm si ngeen ànd ak dal ak yar ak teggin yéen ñi nga xam ne yéen a ngi ci dëkk bi fas yéene dalal gan ñi sëriñ baa ngi ñaan ngeen ubbi xol yi ubbi kër yi taxaw mu ànd ak yar ak teggin na ngeen daan doxale ci bu njëkk ku leen xam-xam teranga ci biir tuawal neena mi ngi ñaan loolu ngeen dello ci ubbi leen kër yi te it yéen ñi nga xam ni yéen a ngi dëkki tuawal te yor fi ay kër te njaboot gi di ñëw te yàlla indi leen dara jóg leen lu dul ñëw màggal si juddu yonent bi salaay salaam nee na ngeen fexe ba yombalal ko nit ñooñu ndax léeg-léeg nga dal ci kër bëgg dugg nit ki profito ci gamu gi yok njëg ga wala mu yok pass ba wala mu yok location ba ngir rek profito ci bi te la ngay am ci gamu gi boko xamul mën nga joxe sax sa kër te tax mën nga joxe sax auto tax kon yeen ñi nga xamni yeen dëkk ci dëkk bi di dalal gan ñi di recevoir mi ngi ñaan ngeen gën leen yombal na nak yeen ñi nga xamni yeen yor yi di indi nit ñi daf leen ndank ndax diggante Dakar ak Tivaouane sorewul waaye boo ci bëggee profité liggéey ci loo xam ne danga ko koo bëgg liggéey ci benn fan ci loo war a liggéey ci at soo moytuwul musiba am nee na mi ngi ñaan pèlerin yi nga xam ne ñi ngi ñëw bu ñu gàmmoo ba ca ëllëg sa dafa bari ñoo xam ne dañuy jëkkante daw delluwaat te gis nga sama bàyyi daf daan wax ni mbën maag sëriñ baag wall yu baax ñépp a ci bokk yam bët moom gëmmentu boo ko lebalee mu fay la kon nee na dallu leen tuuti ba da ba seen xel dellusi ngeen soog a jóg dem kon mi ngi ñaan yàlla gàmm gi yàlla nañ ko fekkee jàmm yàlla na nekk ci gàmm yi ëpp doole ci gàmm guñ fi ma sa sëriñ bi mi ngi ndokkeel ñëpp di ziar ñëpp di sàkku ci ñoom ñaan te du leen fàtte insha allahu taala di ñaan ci barke ki tax ñu woote mu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak ki ko wooteel muy maam Sidil Hadj Malick ci seen barke yooyu yàlla na ci yàlla dëgg faj aajo yëpp defar yëpp saafara jàngoro yi defar xolli yi tàppe ko sëriñ bi Cheikh Sidi Mouhamadou Mansour radiallahu anhu daf daan wax na lay wi gàtt na فو جيم تيواول لو فاي ووتي داماي ماغالي كي تاخ ني بنداما تا موي محمد صلى الله عليه وسلم تي ديغالال كان سيد الحاج مالك انا لولو كو تي امول دارا دوتو ام تي لينين دارا تا كو ام دارا تا درجة جارول لا دارا دو ام تي درجة دارا نداخ وليس نفع على حب بلا عمل وتابعا سنة المختار تقتنمي سانسلين دفرو ام جين باسك امولين باك بوت سير يوني ku bëgg sa affaire dox gàmmu gàngoo ku bëgg sa yëfu dagan wér gàmmu gàngoo ku bëgg sa aaju faju gàmmu ku bëgg jëkkër gàmmu gàngoor ku bëgg doom gàmmu gàngoor ku bëgg tukki gàmmu gàngoo ku bëgg ñu siréel la gàmmu gàngoo yéene nga xalifa gàngoo juziitum wa kufiitum wa yuutiikum wa yansurukum nasran nasran nasran assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu علينا سلام ربنا دائما رحمة صلى خشيا